la la la la la la ilaha illallah wa la ilaha illallah la la la la wa la ilaha illallah la la auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safoo saa su nekk Daaru Bairé Fall TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaare tey nag ñu ngi si dëkk bu tedd dëkk boo xamante ni fii ñu toll nii sax si koor gi daa wane li nga xamante ni mooy dëkk bi ndax dañoo faral dañuy faral di wax ni ñaareelu fukki fanu koor gi fukki fan yi ay njëgal la. dëkk bii ñu nekk nag di daaru xafoor di këru jéggalu aji jéggale gi wala kon gi foofu la ñu nekk tey muy dëkk Serigne Saliou Fall di rakki Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ni ñoo bokk lépp di Ahmadou Fall Roxaya ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Seynabou Ndiaye tey dëkkam la ñu ñëw ngir bëgg leen wan la nga xamante ni waxante woon nañ ko ak muy daaru bayre fépp foo xamante ni njabootu Cheikh Fall gaa ngi fa te njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi kenn jiituwu si ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Fall ñu nekk nag dafa toggee ndogu di ko yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Touba Touba daañu fa dem wan la nga xamante ni moo fa xew moom lañu fas yéene def nii tey tàbbi ci biir wan leen li nga xamante ni mooy liggéey bi waañ bi ni muy doxalee waaye yàq beeg lépp ak ni ñuy waajee ndog yi waaye convoi bi nga xamante ni moo war a dem jëm fi nga xamante ni mooy ba Touba waaye jël ci ñi nga xamante ñooy kilifay dëkk bi waxtaan ak ñoom ñi yor waañ bi ñu waxtaan ak ñoom waxtaan woo xamante ni nii dana leen gën a xamal li nga xamante ni moo fi xew kon mbokk yi nañu àndandoo tàbbi si biir doxal li nga xam ne mooy liggéey bi ñi ngi leen di ñaan saa su nekk rek ngeen di abonné seen mi te di ko partagé jaa ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh mu Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko loolu wéral ko waaye di ziar baax tey ñaanal sëriñ Amdi Fall moom suñ Modou Mbène di ñaan suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko mbokk yi nag comme ni ñu ko baaxoo defee boobu ba léegi ñuy wër mboolem buntu kër maam am Ibrahima Fall yi tey nag ñu ñëw ci kër jàmbaar di rakki maam Cheikh Ibrahima Fall di maam Saliou Fall tey ñoo ngi fii tey ci Daaru Xufoor ngir fa yéene jël ndogo yi waaye fësal tamit liggéey bi nga xam ne njabootug maam Saliou Fall ñu ngi koy def ñu toog ak nag njaboot gi sëñ Amar Baye Fall mi nga xamante ni mooy communication kër gi ñu fas yéene koy jox kàddu yi rek mu tëjji waaye tamit tëjal sëriñ bi waaye wax tamit ci kàddu sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di ñaanal Cheikh Mountakha Al Khalifa mu yàgg fi loolu téwér noonu la ñuy ñaanal sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda xalifa général des Baye Fall mu yàgg fi loolu téwér waaye noonu it la ñuy ñaanal sunu wasila sunu yakar Chérif hasan Fall Khalifah dar khofor mu yag fi lol te wér mu melni ñu ngi tok fi ci keur seigne Ndaam Saliou ku gis jëm ji tok nga xamni moy Cheikh Amadou Fadal di imam dekk bi yor kaddu seigne hasan khalifa bi eh, di xalifa seigne Ndaam Fall Saliou yéen nak waxa seen bop yeen wa daru bayri TV ak murid. murid ni ngeen ko waxe non rek la demee fi benn buntu keur la ci buntu keur seigne Touba yi seigne Touba jox ndigal eh, sunu mam ju tedd jamam maam ca 1920 ngeen mu gor fi dëkk fi seigne fallu dina ci dik mu melni lo rek lañ amoon luñu ubbé di leen sant ci taxaway bi yeen média yi euh di xamni tay moy mooy ñaareelu ndogul daaru xafoor ci njiital ndigalu assane asantuwaal yalla na fi yag lool te wér ak ci teewaay jëwriñ yi ku tudd seigne mbay ñang mi tok di doomi seigne tay ba ñang di doomi soxna xalifaal bintu maam saali faal daanaka day yobale ñëpp ñoo ngi leen di tatagat di leen teeru di leen dalal jàmm ak salaam ci dëkk bi nga xam ne mooy daarul xafuur ak tey muy sëñ Assane Fall di sët bi njëkk a toog ci ñi wutu toog jataayu Mame Saliou di am mbégte nag bu baax a baax ci turu sëriñ bi ñoo ngi leen di sunu mbégte li ngeen wax agsi leen ci jàmm ak ci salaam bu ko defee taatanu xabaar yi li jep ëpp cosaanu dëkk bi ak li jëm ci ndog yi dëkk bi moom laata muy tudd ni mu tudd Daaru Xafuur dañoo wax ne sëriñ bi bi natt bi àggee ci ñëw ci moom te ñëwagut ndorte yonente Muhammad salawatullahi alayhi wa sallam laata muy am ñeen fukki at ñuy wàcce ci moom alquran karim ci ndigal suñu borom jibril ñëw ci moom ci xaaru Hira sëñ Tuubaa itam ñetti at yooyu bi mu jubee moom itam daanaka da daan dëddu ay bokkam di dem fii ci Tuubaa am na fu ñuy wax dexu mbal dex googu serigne bi dafa dan dem non tam yooye jamono bobu borom buñ ko amagul tur dekk bi nga xamantene nak nag yu li wax geej yoonu geej gi ba ñibbisi ñu def ko résidence surveiller fofu ci Jurbel mam saliwu ak magam ñu bax ñu tedd ji Cheikh ibrahim Fall te ku ci ne bo gisee sa morom kii danaan sama rak ju baax ki am sama mag ju bax ji ah dafa wax sëñ Bamba ne ko dama bëgg wu dekk bu dekk fekk boobu toxoon nañ Thiès 1915 ba ñëw ba dëkk ak moom kër gu mag kër gi ñu dëkkoon mooy foofu suñu mënaa mi doon defar mu dend ak franco murit sëñ mënaa mi moo ko def foofu la sëñ Abdoulaye Yaqin Diop wutoon jox ko Cheikh Ibrahima Fall mu ne ko sama dëkkandoo ak yow di dend ak yow ak sama coowul mbooloo euh, loolu du war ma daal di ne saa yi loxo yi ne nekkoon naa dem ba nii dem ba nii mooy boo jege raay bi jëm kër Cheikh Ibra fa lañ bokkoon dëkk moom sëñ Saliou fa la sëñ Saliou nag jóge nag di xeeñ fa fayeen fu mu war a wut muy dëkku bii ne sëñ Bamba damaa bëgg a wut dëkk bu dëkku mu ne ko am nga ci ndigal fekk nekk sëñ daan a jaar fii. bi mu ñëwee ba agsi fii euh, xam naa baatin moom du nëbbu ñaare euh, te it euh, lu baax day war a feeñ su waree feeñ ci la gis na dëkk bi daal muy barab bii di Daaru Xafoor moxtaar na ngir mu def ko dëkk boo fekk guerre mondiale day doog a jeex bu njëkk bi yéen a ngi jàng ne 14 18 kon bu 18 jeexee ñu dugg 19 ci la jëm fii ci dëkk bi gis ko daal di koy gor nag catu 19 jëm 20 waaye mu ngi ko soñ ci dëgg-dëgg na 21. bi ko sanche itam ne señ bi dekk na dekk bu dëkku ah, dafa yebal ki nga xane moy eh, señ Masamba Mbàkke di rakam ak señ dam Abdourahman Lo borom ndam daru alimul khabir mi nga xane man mi wax ak yeen sama waajur bi señ dam Abdourahman kooka lañ ko tuddé ne ko jamono bu nit ñewé da wara amu tur dem leen ngeen jox salibu turu dekk bi bi ñu ñëwee daal ko señ bi ñu yebal ne sa fi nga gor mm, muy barab bi da wara amu tur mu ngi ko tuddee daarul xafuur foofu sax wax na ne ñoom ñaar kenn ko da ngaa jox sa morom worma ba turu dëkk ba na mu tudd da nga ne na ko wax mu dugg noppam maam Saliou sa morom doo caa topp waaye gannaaw ñun dañoo fonkante ci suñu bir ko sant Mbàkke ah eh, sëñ Abdou Rahman ne ko yaa sant Mbàkke kon yow yaay ki war a wax turu dëkk bi waaye mu ne ko déet waxal sëñ daam dañ ne daar maanaam fii de kër la mu ne alxafuur fii de kër la maanaam wàccuwaay la mu ne bu dee wàccuwaay it waaye këru njëggal la baatu njëggal na bokk ci turu sun borom subhanahu wa taala ndax defe naa euh, jéggal mooy ko taq wala nga tilim bu doon ndox dañ lay fóot ak saabu ba nga set wicc nga doog a mën a texe kon fii fi la ñuy fóote ñi ñi ci muñ koote ci ak njubte seeni i bàkkaar dañ bu ñu fi jógee nag dem Touba mooy kërug texe ga bu fekkee nga doog a texe kon mu kenn mun a texe te nekk ku fóot ci bàkkaar ba set ci wicc wàllu nag loo xamante ne jëm na ci ndogu yi dañu wax ne 1915 bu nga xam ne toxu si définitivement fi nga xam ne moom Thiès ñëw njaareem fekk na bisam 12 togg nañ dogu waye togu ba ndax señ bi xam nga mayuñ ko mu toog dalluwul benn yoon daanaka 14 bi mi jeex ci lañ ko nak doga nak na nga ci nak ñu def la descente surveillée nga nek njaareem 15 nak lañu togu togg togu wir def ko ci sahar mam salihu ak Cheikh ibrahim Magam ñoko bok ay domam ba ci sët yi lo loo xam ne lay bu ñun moom la ñuy def loolu nag euh, daf jëm ci li alquran naan inna alladina amanu wa haajaru wa jahadu bi amwalihim wa a azamu daraja inda la ulaika waaye nag bu njëkk bi nit ñi di ñëw di dugg ci islam booba yëf yi métti na lool de sun borom wax leen ne leen ñi nga xam ne dañ dañoo gëm te gëm gi waxuñ ko rek muy wax gémmiñ bayyi dañoo bayyi seen ñooñ bayyi seen lepp ñu ana ak yonent bi sallam seen alal fekki wuko seen man-man fekki wu seen kan fekki wuko de sax man nañ ko caa def neena bu fay lu mag di amé ci daraja lu gëna reey ñi ab fay gisuma ko lii mooy fay gëna reey kon loola sëñ touba joxon digal cheikh re mu diko ko def ne ko dafa am gan gumay set ci ma bëgg yaa ma ci do ya koy tel ya ko ganale cheikh Ibra ci digam ak sëñ bamba ci waxu sayr xeyna wax dafa fonk sëñ ba da danaan addiw euh, ku baax ki lu mu wax ñu wax ko ne ko nee na day am ak gan mu ne xam ngeen nu bëgg ci gan a mu baar ak mooy ñëw moom la bëgg sant ma ci maanaam ma jox loo xam ne iftaar mooy ndogu ca lañ koy def loolu la sëñ ba am bëgg a wax ca la tàmbali ci def lu mel noonu kon lii cosaan la woon yàgg na li ci gën a xaw a yéeme nag mooy xam nga li ñuy wax naan ku dee bàyyi mébét wax naa ko keroog euh, dafa am ko ko weddi nee na déedéet nee na koo xam ne da sax ci lu baax di ko def yar ci sax njaboot la nga doon mébét boo fa jógee boo geesoo mébét ba àgg ne def nañ ko. kon loola nga xam ne moom la sëñ Bàmb waxoon Cheikh Ibra Fall bëgg ko mébét boobee fi ne bu ñëwaatoon tey jamono di xool ñiitam ñii di sëtam yi ba ci doom yi danaa xam ne fukk yam daan def téeméera moom Cheikh Ibra Fall ay waa këram def nañ ko. ndax yalla day ful lu bax waye duko ko wàññi mukk ci aduna loolu day dem ba ci bo defé lu bopom? ci sasa malaika bi bindu lu bax mo commandé bopam day lay daldi di fay lu bax bu dee fukk la koy def bu dee fukk juroom ñaar fukk la koy def bu dee lu bon mu né nañ ko bàyyi yéxé ko ba lekk ci waxtu bu astaghfirullah ñu bind ben té nañ yem ci lola kon moom dana am waye nak bo yéré ñi ci lañ ko wara yar mais googu da koy def ba def lu raw yow la nga yéne won li dal ngir uh, ubbi ci lañ gëna mëna yëm ba nga laaj leen ba xam xanaa kay ñu ñëw ci jàmbaar ji nga xam ne mooy euh, rakki maam Serigne Fall di maam Saliou ay kàddu yoo xam ne rek euh, di ñu ko man a baaxee ci jëm jooju. waaw maam saaliw nag xam naa jamono daa xew mu ne su da ñàkk wax ci moom waaye sax da doon ko wax ci moom. waaw waaye nag euh, Fall dawal yéen ma ndeet ci sët yi du ñàkk ndax jamono ko laaj nag te loo xamul ne da nga ko réer te boo ko réeree fonk nga ko war a fonk du am kon nag moom wax ko ngir ñu gën ko jox gëddaam ak fonkam loolu da ci am solo loolu mën nañ koo wax wax nañ ne Maam musaa ko kon ñëw na fii bu ngeen génnee sax fa la toogoon soxna jeefaal doom moo ma ko wax nee na Maam Moussa day boroom xam-xam ñëw li ñuy wax togorte moom seen bagage yi ñuy gàddu bindukaay yeeg kayit yooyu ne ci mu am lu mu bëgg laaj Maam Saliou ne mu ne ko musaa loo nar mu ne tekk mu ne ko man desul wax ci man dara dëgg li mala wax de bu bindu ci man wax ci man dara yomal xam lañ may xam lolu soxna je mi domam momako wax di wëjur ci sëñ Mor gay di sunu doomi bajan àqan mam saliw nak dafa don ko xamne ma tok toog saliw Saliou Mbacke bu mi wax sama bay moom fa yónni won mu jox ma nii ma xiilu pare mu ne señ fallu mané ko Mbacke mu ne mako ko ki ko bax ki moy señ Bamba manam mu ne ma ak bay Cheikh ak bay señ saliw ken lañ duñ ñaar duñ ñet kon daanaka lu Seex Ibra mooy lu Maam Saaliw waaye rek moom mbiram dafa bàcc ne ba euh, boo ko dee xool euh, daanaka rek euh, mallu ngay def mallu mooy dangay ngay noppi dootoo mën a tee wax ndax lu ci ne da caa wane kéemaan wax na euh, ku ñuy wax euh, sëñ Abdou Awa njaay moo ma ko nettali nee na ma sa maam damaa ñëw fii ci Ndiaye ci ci ci ci béyti fekk ko fi nee na mu ne Abdou Awa loola tax a ñëw nee ma ne tekk mu ne ah xaw ma lan waaye ji wopp duma ci dem de dellul saa boo diggee ne nag yaram wi daa laati kaaf mooy daa euh, jagadi def nii def nii so boobaa wopp joojee mooy li ma yóbbutu Tuubaa ci mbaam Bamba sama sang bu baax ba waaye jii duma ci dem. am ab da wane mu dem ba jamono sàngam jot mu mel ni dañ koo déy ne ko demal waaye sax fàtte na la le ne bi mu ñëwee ba tim mam saaliwu ne ci ni mu ko gisee xelam dafa dem ci la ko sëñ Saali Fall waxoon fekk daf ko ne su ma fi jógee danaa waña Tuubaa lu kenn mës sa wane ci man la njëkk ci man la mujj dootul amati mukk Abdou Awa mu ne amu ah, ne bu ma kenn def ci oto nañ ma yenu yóbbu ma Tuubaa te su ma fi jógee dañ ko wax sëñ Dame Abdourahmane loolu na ko yëg mën nañu tuddee Ah, maam Abdou Awane bi mu ñëwee ci ñëwam bu mujj boobu xelam dem ca lam ko waxoon mu bàyyi jëmm ji fii dem di ko tàggate ruugi rotagut muy talaata ci ab yoror bu dang ci boori tàkkusaan ci la wàcc suba ak ba lañ ko dem ci Touba bi mu kiyet noonu lañ ko yenoo defuñ ko ci oto ba ñëw ndaam daaru alimul xabir wax ko sëñ Abdourahman Lo sëñ Abdourahman loolu loo moomu nag ndikk moom sax dafa demoon noo xam ne ci wàllu baatin amoon na am xarum yar moom xaaf moo xam ne seen diggante la nekkoon maam Saliou day yóotu xar mi téye ci nopp bi di ko wax lam koy wax ne ko demal ci abdourahman ne ko man saliw nangam nangam xar mi day konnam konne ba ag kenn du ko lal kenn du ko jige su ñëwee xuus mbolo ñu ne may leen ko su ñëwee mam abdourahman japp nopi ne ko ah waaw sëñ saliw dañ mm, mm, mm, dane waaw baye ko mu dem léeg ab téré la koy takal itam kenn laal téré bi ñom seen digënté leneen la won da fañu àndee du fi andu demb la wax nañ biñ koy denc itam lim noonu daa wane tubaab lu kenn sa bagage yi mu doon bopam bëggul ëlëk ken nan ma defal saliw fal nangam lool lool lool lool la ci doon bañ nee na eh, ñu fàtte fi libin ji fàtte fi cuuraay bi eh, fàtte yi ñu ko war a waajal muy perkal bi biñ demee nag ba àgg di ko defar fi ñu doon gas xaalis nguur du ma doon génn Cheikh Mbaye yaaram moom sëñ mbay Yaara Cheikh eh, sëñ Yaara Mbaye mi nelaw amoon na sax ci xaalis boobu waaw ñu jaaxle ci benn waaye ne sama kalpe moo ñu jël jox ko kalpe ba moo dëgg la waaye loo xam ne fees na porte naa ëpp na kalpe yaakaar naa sama turandoo bu baax Cheikh Mouhamed Fadal moom sëñ Touba ñu dem wax ko ko mu ne su ngeen yeexee Baye Sali Touba gépp suuf xaalis la koy def denc leen ko ci ci noonu xaalis boobee ci lañ ko waajale muy lim fàtte woon fii ci lañ ko jënde kenn du ne maa defal sëñ Saliou Fall dara moom moo wane yëfi boppam biñ koy waajal di ko jullee itam ku taxaw ba ñetti ilimaan ñaari ilimaan mot xamoo dara araf yëpp dañ ko génne ñu xëcc la nga àndu sëñ Yaara Mbay mii ma wax léegi moom moo ne jaasa egsi ñu ne na ko jullee mu daal di ko doog a jullee loolu mbir la moo xamante ne maam Saliou wa wane na ko ci wàllu baatin ay ñaan ak soññee boo xam ne ci taalibe bi waaw loolu li ci moom mooy ko doore ci njabootu boppam gi nga xam ne ñooy ñi sant Faal di wàkkat moom Saliou ak seex yi nga xamante ne ganaar yàlla dañ koo toppoon mu defar leen loolu di law doon royukaay ba suñ joon ni tey su ko defee ñu am pastéef ndax def naa nangam ren mu jig ma bu nii boo ko defut boo ko amut ca yow la te la maam yee def daaw buñ ko xoolee ñun mu jig ñu nañ fexe ba ca kanam uh, gën lii nga xam ne mooy tey ndax arab yi dafa am lu ñu wax ci seeni wax dañ so bëggee sa aduna jak noy def ñu ne ah, laaj nañ leen ko de ñu ne da ngay fàttaliku dembu defar sa ëlëk ci sa tay rafa njort ci sa ëlëk lool la arab yi wax da ngay fàttaliku sa dembu defar sa ëlëk ci sa tay sa xel dal nga rafa njort ci sa ëlëk waaye fàttaliku woo démb waajaloo ëllëg defaroo ko ci sa tey bëgg sa ëllëg baax loolu man su baaxee dana ma jaaxal man fallu waaw kon nañu jéem a góorlu bañ mu mujjee puso nag mu réer mujjee puso mu réer mooy li ñu maam bàyyee nañ ko jàpp ndax nee na daan wax <clears throat> xaddami ko daal ne li ma sëñ ma defal ma indi ko daarul xafoor gii su ngeen booloo ma defar leen du ma ko yóbbu waaye nag ci kaw ngeen boole te nekk benn ne daaru ëllëg ca sët ya lii gannaaw ci ay mag yu wér te jamono sët ci lañ toll kenn ku ne xam na ne bàyyi baax nañu seen bàyyi baax na waaye lañ daan def ci xeetu taxawaayu ndogo yi ak lu mu mën a doon ren jii defe naa ne ku xa wax xam ne loolu yokku na te ñoom it loolu lañ doon ñaan ndax xam nga day baat bu naqaree dégg nag waaye kenn ku ne fi ne boo taxoon nga jur doom mu gën la. ah koy ko ne boo soñoon jur doom doom ja gën la mooy tax lu baax la nga doon def mën a jàll jëm ca kanam loolu mooy innal lazina amanu wa amilu salihat fa lahum ajrun xayru mamnun ñi nga xay ne def lu baax te sax ca yool ba ñuy am ëllëg day bëpp du ñëw te du dagg mukk ci àdduna kon yool boobu nag pour ñu am ko ci ñun ñii fi nekk léegi ne ci ñun la may ndax bàyyi ak maam yi ñaanal nañu ko ñu bañ cee xëpp suuf nag ma jëpp sa mu réer a di teel ci saaku mën a xew salaam wa rahmatullah waaw kay euh, kon mbokk yi euh, dégg ngeen kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko kàddu yi am solo yoo xam ne jëm na ci taarixu dëkk bi ak euh, maam Saliou Fall ak li tamit cosaanu ndogu yi ñu toogoon ak koo xam ne tamit ci kër gi la bokk di taalibe bokk ci bu waajuram bokk ci seex yi nga xamante ni mooy seex yi maam Saliou yi muy sëñ Taïba Niang ñu ñu di ko jox kàddu gi rek muy yëkkati kàddu gi ci lu jëm ci ñi nga xamante ñoom la bokkal liggéey bi sëñ ba looy dolli ci kàddu yi nga xam ne sëñ bi wax asalaamaaleykum ñu mm, ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu mm, sëñ Assane bi nga xam ne moo moo fi xarit bi moom Saliou ak mboolem rakkam bi nga xam ne ñoo fi nekk ci ci Daaru Xóor gi mm, di xam ne sëñ Saliou waaw doon na jëmm joo xam ne ji moom moom kenn mënu koo xam seexal nañu bari ñoo xam ne ñi waaw ñoo na topp ci gannaawam ba ci suñu waajur sëñ Taïba Niang ci la bokk ak waa waa Baye Niang ak ñi xam ne ñoo am ñoo féete Edouard Tawa ak ba ba Badji wax naa ko Badji ak doy na ñëpp moom seex yi bari nañ ba kenn ku ne daal la sa waajur nekkoon yaa nga ci ne yaa nga ca fas yéene liggéey na na sa waaju daal liggéey nga topp ci tànkam rek aw ci noonu bëgg a jëf soo mënee jëf sax lu raw lu mu jëfoon nga jëm ko loo ci mën nga def nga def ko rek ba feeñee ci ndog yi ndax bu njëkkoon dañ ko daan yenu di ko yóbbu dox dox amoon na fi ba jamono dem na ba léegi dox dox ba léegi bool yi gën naa bari ay oto ko yóbbu te bu njëkkoon ay tànk ñu ko daan yenu di ko yóbbu kon ak yokk mi nga kon loolu ñu ngi sant moom Saliou Fall bu baax te it ñu ngi sant itam bi nga yàlla dogalee yoonu sëñ Tuubaa ñu féete ak ñu féete ak moom Saliou Fall ndax ku ne xam na ne moom doole yu bëri bi ci am na ko bu baax a kon ba doy sëkk te loolu wuñ ko hmm, kon nag ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax ci di sant yàlla fi ñu féetale ak sëñ Saliou hmm, kon dal jërë jëf rek di wax ji dañ ko waajur dañ ko waajulut hmm, waaye nag mm, foofu doy naa yem ba beneen yoon waaw ñu ngi leen sant baax jërë ngeen auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taxalaa wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant Serigne Touba Cheikhul Khadim di sant maam Cheikh Fall Baabul Muridiina di sant maam Sali Fall borom Daaru Xuddoos di ñaaral suñu bi sëñ Assane Fall Modou maam xalifa maam Sali Fall suñu borom yàggal ko fi defal ko wér euh, di am ay kàddu ñuy bàyyi ko kàddu yoo xamante ne bii mi ngi bàyyi ko ci sëñ Assane Fall xalifa maam Sali Fall wàcc ci sëñ Fallou Falloum sëñ Dame Saliou bi jox ma kàddu yi ma war koo jàllale muy kàddu yi sant ak ak soññee ak sant ak kàddu yoo xamante ne bii kàddu ngërëm la ndax liggéey bu toll nii boo xamante ni bi dañ ko fee fekk muy liggéey yoo xamante ni bi ndog yi liggéey ci kër Cheikh Ibrahima Fall ak kër Mame Sali Fall jëmale ko kër Cheikh Oda Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te liggéey bi ñu amale ko ci liggéey bu mucc ayib ci liggéey bu ànd akub yar ak ay teggin ak euh, xol bu sedd guy ak jaayante gi jëmi Serigne tubaa ak Cheikh Ibrahima Fall ak Mame Saliou mboolem taalibe yi nga xamante ni bi ñooy njabootu Mame Sali Fall yëpp nekk ci ginnaaw Serigne Assane Fall buuru maam muy rakkam yi ak mboolem Cheikh Serigne Saliou Fall yi ak ñi nga xamante ni moom ay ay ay doomam lañ ñoom ñëpp ñu ànd liggéey bii di ko di ko di ko di ko wéyal muy ndog yoo xamante ni fi lañ ko fekkoon sëriñ Assane Modou Maam mi nga xam ne moo njëkk a doon xalifa maam Salifa ci sët yi toog toogaay bu bu xam ne dañ ko koy ñaanal suñu borom yàggal ko fii te wéral ko mu am fu mu ko jëlee dog yi nag yokk ko yokk goo xamante ne bi képp ku fi ñëwit gis nga ne ndog yi yokku na waaye yokk gu mu yokkit la ko waral mooy njaboot gi nga xam ne ñoom ko bàyyi ànd nañoo moom euh, jël seen alal yëpp jébbal ko ko ñu ànd moom liggéey bi di ndog yi nga xamante ne bi ñu koy euh, ne bi feeñ ko fekk di ñaan suñu bàjjan Soxna Fall jëgg suñu borom yàggal ko fi te defal ko wér moom rek lañ fi dese ci ko sëñ bi daal mi ngi soññ boppam di soññ ñëpp xam ne liggéey bi nga xam ne fi lañ ko fekk ndax képp koo xamante ne bii bàyyiloo na la woor ci weeru koor kon am na loolu ndox sa diggante ak woor woor muy ndog yi nga xamante ne bii ñu ngi koy togg di ko yóbbu ko Serigne Touba Serigne bi mi ngi ci boppam di ci soñ ñëpp xam ne bu weeru koor yu taroo lépp lu ñu am su ndog yi ñëwee nañ ko génne def ko ci liggéey Serigne Touba bi yóbbu ko Cheikhul kër Cheikhul Khadim ndax ñu man cee am ngërëma Cheikhul Khadim Serigne bi mi ngi ci soññi boppam di ci soññi ñëpp di ñaanal ñëpp ñu ñu ñu waajaat samedi bii di ñëw fas yéene ko amal nañ ko ni nga xamante ni bii dañ ko amale ci samedi bu nekk ñi nga xam ne ñooy waa presse bi fi ñëw nag euh, muy waa Lamp Fall ak ñi nga xamante ni bii waa euh, rajo TV ak euh, waa Daaru Bayra TV ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay ak yeneen ni sites yoo xamante ne bi ñëw nañ fi jël ndogu yi waaye sëriñ bi daal mi ngi leen xamal ne mi ngi leen di ñaanal suñu borom faj seen aajo zaahir ak baatin lépp luñ ci liggéey suñu borom defal na ci ndimbal loolu àdduna ak àllaaxira lépp luñ ci sàkk sëriñ ñu ko ci wasalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh doole bi faal bi tey fala ilaha illallah mi baloma yemande doole biir faal ak witee fala ilaha illallah mi baloma yemande doole biir faal ak witee fala ilaha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 la la la la la la la la fa la la la la la la la la la la la la fa la la la la la la la la la la la la pa la la la la la la la la la la la la la la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 fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله فلا إله إلا الله فلا إله